jërë ngeen jëf mbokk yi ñi seetaan saa su nekk rek ci jàmm ji info ñu ngi leen di kontaan bu baax a baax saa su nekk rek dëgtal leen li gën a fës ci ayu bés yi ñu nekk rek waaye laataa damay jaajëfal bu baax a baax sama cadreur Cheikhou Dramé ay ca mbokki bisimila ñu jukki leen ci li fi jotaroot ci ay xibaar te gën a fës semaine bi dañu koy dooree ak mbiru po Ousmane Sonko rek ci fàttali li ñu koy toppee mooy euh, violé ab xale bu jigéen ci loo xamante ni ni neexu ko loolee waral sax euh, ayu bés yi nga xamante ni ci la ñu nekk euh, dëkk bi tàngoon na lool lool ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay militant Pastef yu ci bëri euh, gaañu woon ci ay gaañu gaañu yu metti ba tax rek ñu yóbbu leen ci ñu yóbbu woon leen ci hôpital boobu nga xamante ni moom moo di Idriss Pouye ex CTO waaye rek ñu fàttali ne Ousmane Sonko demoon na fa ngir nemmeeku ñi nga xamante ni ñoom ñooy militants yi nga xamante ñoom ñoo blessé woon euh, ba tax na sax léegi démb ay journaliste bëri toppoon nañ ko ngir dem xool ana lan lay mujjee ak yooyu la euh, militant ci fàttali rek dem na fa ba noppi waaye tamit suñu naataangooy toppaat nañ ko ba ca biir këram mu mel ni rek delluwaat na fa ba toog Eh, ci eh, mbirub Ousmane sonk boobu rek la ñuy desandi ndax bis ni tey ci alxamis bi la ñuy tàmbali rek li nga xam ne mooy levée immunité parlementaire eh, ci fàttali rek dañuy daal di tekki rek nombal tànkam bu ko defee rek ñu mën a doxal li nga xamante ni moom lañ koy toppee. ba tey rek ci wàllu actualité rek dañuy daal di dem nag ca commissaire centrale de Guédiawaye Pikine daal di fay fekk rek commissaire ma euh, Madjibou Lay nag moom rek euh, doon na euh, taskatu xabaar yi waaye doon wax ak ñoom rek ci liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ci yëla bés rek ba tax na sax ay defkatu ñaawteef yoo xamante ni jàpp nañ leen mën nañoo jàpp rek juróom benn lañ ci ay nit waaye mën nañoo jàpp ni juróom yi ay góor lañ kenn ki ab jigéen la ñu ngi leen jàppee fële nga xamante mooy wàqi naan ci seen appartement moom nag commissaire Madjibou Lay mi ngi ñuy fàttali rek nag sax ba ñu demee di leen jàpp rek fekk nañ ci ñoom 800000 francs ci suñu ay koppar fekk nañ ci ñoom ak oto ak juróomi portable yoo xam ne ci ay nit lañ koo jëlee waaye tamit ay saaku euh, meew waaye tamit ay saaku euh, ceeb waaye rek suñu sukkandikoo ci euh, commissaire Madjibou Lay moom mi ngi wax ni sax ki nga xamante ni moo cee jigéen moom ab coro ab corop chef de gang bi la ci fàttali rek sax chef de gang boobu ba léegi ni tegaguñ ko loxo waaye ñi ngi def seen kim kàttan ngir mën leen teg loxo ba nga xam ne askan wi danañ tëdd bu baax a baax te bu ñu tëdd daal di nelaw yandoor ba tey rek ci wàllu actualité dañuy daal di dem rek wax ci ki nga xamante ni moom moo di Aïssatou Diop Fall ci fàttali ab journaliste la nekk fële ci télévision Futur Média ay kàddu yu mu yu mu wax daal di koy jëmale ci ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr waaye tamit rek bu ñu fàttali ay Aïssatou Diop Fall kàddu yi mu doon yëkkati nee na li ni mel daal dafa doy waar jaaxal na ko lool ndax mu mel ne rek rek Adji Sarr dafa am ñoo xam ne euh, ñoo nekk ci ay euh, ginnaawam ndax ndak nee na ki nga xamante ni moom moo di euh, avocat wu Adji moom mooy avocat am te kooku ku amul doole du la jàppale ci fàttali rek avocat bi mu ngi tudd Abdou Jalik Kan ndax nee na rek koo xam ne sa salaire bariwul lool nga mën a jël avocat bi ni mel kon loolu doy na waar moom daal li mu ko jàppee mooy mbir mi daal dafa desee leer ci bopp sénégalais ba tey rek ci wàllu euh, actualité euh, dañuy daal di dem rek euh, fay nga xamante ni moo di nation Unies fii ci réew bu Sénégal ci ndakaaru ab gone boo xamante ni ko sàndi ci foos rek ba sax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo doon defar boobule foos ñor ñoom ñoo ko daal di gis daal di gis gone gi mu daal di ñàkk bakkanam ni ki démb rek suñu naataango yu nekk si jàmm ji info wàccoon nañ ci terrain bi dem laaj askanu Sénégal lan mooy lan mooy seen gis-gis ci wàllu woowule waaye ñu ci bëri rek lu doy doy waar. waaw dañ koy ñaawlu lool dañ koy ñaawlu trop parce que ëmb métti na jur doom métti na même bu fekkee dogal la sax da koy xam ne ne yàllaa la nattoo loolu waa nga nga yor ko parce que doom kenn xamul ëllëg lan lay doon ëllëg waaw. loolu daal ñaaru nañ ko trop jigéen moom warul jóor di sànni. mbokk yi euh, jërë ngeen jëf li moo nekkoon bés di jour euh, di leen jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal le cadreur Cheikhou euh, Dramé di leen jox rendez-vous ci beneen bés bi ñu leen war a jottali wala ci beneen xew-xew bi ñu leen war a jottali jërë ngeen jëf. jàmm